tey jii euh, euh, li ma bëgg nga xamante ni ndaw ñi tey jii mbëkk gi ñuy mbëkk gaal yi. Mhm. am na ci salaatu yoo xamante ni buñ ko téyoon buñ ko téyewoon di ko liggéey. dara daraja maanaam euh, coono bi ñuy daj ci ndox mi bay àgg bitim réew ak lañ fay daj yooyu buñ ko dajee ci salaatu bi salaatu bi jox leen lépp. maanaam am nañu ne ci réew mi sëriñ bi jamono yi ñu toll na waaw ah. mbir mi dafa dëgër. dëgër lool dëgër. am na ci ñoo xam ne ñu ngi xool seen i way jur. Mm-hmm. amuñu lu ñu leen jox. waaw ñii ñu ngi xool seeni doom di xool seen i soxna. Mm-hmm. amuñu lu ñu leen jox. Mm-hmm. mais ndax mën nga am foo jaar ak nit. jaar ak salatu ala nabi. ba lépp yomb. salatu ala nabi gis nga gis nga gis nga sëñ Pape. salaatu ala nabi fi ne boo am na bu ñuy wax allahuma salli ala al mawsuuf bil karami wal juudi kim yaawu la kim yaawu salaatu ala la maanaam fi ne nit ku ko soxal diko doxal diko liggey sunu borom dana la may wërsëg ba do soxlal kenn allahuma salli alal mawsuuf bil karami wal alal mawsuuf bil karami wal juudi waaw nga koy nga koy saxal diko liggey sunu borom dana la dimbali ba do soxlal kenn kenn kenn kenn to loko ñaan dana la ko may allahu akbar bo bo boobu ci sa ci salaatu ala nabi ci salaatu ala nabi fi ne man yàlla dimbali na ma ba kima dajal mu duy ma ba ma fess del joxoon na ma ndigalul joxe tur yàlla bu la neex nee ma tur yàlla boo liggéey jox naa la ci ndigal ak képp koo jox ndigal man maa ngi joxe ndigal ci salaatu ala nabi allahuma salli alal mawsuuf bil karami wal juudi buñ ko saxaloon adduna si yëpp maanaam adduna si yëpp saxal ko di ko def wallahi pap alaaji pap an mhm. maanaam toogal léegi lépp loo bëgg dana la fekk si lépp loo nekk it di ci yëngu sunu borom dana ko barkeel mhm. waaw moom sala salaatu ala nabi fii ma toog nag jox naa ndigal képp koo xamante dégg na